Ahmed Lagos boo xoolee moom mu ngi cherché bëre bi boo xoolee moom moo gën a ëpp ah lu mu jëlee initiative ka Mbaye Diop gis nga dinay songi dina wari mu daane mais Mbaye Diop fu ñu jëm fan lañ ko léegi mbay foofu ak somunu fee amam sa loxoom te geenu ngemba góos baa ngi ci biir ngande ngeej a oh, way a way a way a way xandaar oo oh, ku daanu ku daanu amet yaak mbay ku yegg teer daan na ko awoy ah, awoy ah, awoy ah, daan na la daan la moo gën a nekk ndaama bu jaaree ak foofu doo ci génn loolu nga ko may wuurul ci ndaama ak njool benn pël eh, yëkkati na enveloppe bi diis jox la mais nag du man góor la ndax si Serigne Fallou dafa bañ jom la xam naa ci foofu wàllu ñaare jox na ñu ma pël de loolu na xam naa dina yëkkati enveloppe jox la àdduna suuf leen albaat ka caat daaw na fa mën a teg jaatale mon ginnaaw albaat ka ngeen jàkkaar loolu écurie Rebeus Albarka Thiatou Daouda Fall école de lutte Balla Gaye Thiatou boo xoolee moo sub Albarka Albarka ay làmbam li koy yàq des fois dañ koy jël dañ koy jël waaye bañ na yëkkati door ci suuf aaway ah du benn du benn bokkul Thank you. sama xol sedd na ak sama parrain bi kenn du moom yëkkati na juróom million teg sama loxo. macha allah sama ay parrain ba nga xam mais kenn du fay. yëkkati na enveloppe bi diis jox ma mais nag du man góor la. ndax ci Serigne Fallou dama bañ. jom la xam naa ci foofu. wàllu ñaare dafa ni ma. loolu de loolu na xam naa ko. dina yëkkati enveloppe jox la. ba dafa boo xoolee Yankaw Junior dafa soxla combat parce que daa jógee ci défaite kay dafay ñëw pour confirmer moo tax combat bi combat bu neex lay doon te buñ bëree buñ so buñ dajee rek buntu feeñ waaw waaw dafay lewaatoo Yankaw Junior ak Kakourne Kakourne moom mépp léegi demul mais dañuy daje de ndax ay bërekat lañ dañuy daje waaw ay bërekat lañ moo tax daje daje leen waaw yaakaaruma ko bu nar a yàgg. waaw seen taxawaay. ñaari pied gauche. waaw ñaari pied gauche ñoom ñaar ñëpp gar normal lañ teg. bu ñu feeñ bu ñu feeñ. incha allah. ñoom ñaar koo gis ne bëre bi moom la gën a avantage. ñoom moom. waaw ku ko diriger xam nga tey ñu nga ci victoire instant yi moom mooy gën a mën a gérer lamb ji par rapport ak ñu dund ci defet waaw ñu dund ci victoire waaw mooy gën a mën a gérer lamb par rapport ak ñu am ci defet ji kon nag ki dafay ñëw pour ñu day kenn ñëw pour gérer pour am ci point waaw nga dëgg yow yaakaar sax ba ne loolu lay toog waaw demaat ba ka lang la ñuy bëre ñoom ñaar ah lang la ñuy bëre waaw duñ bëre si digg moom lang la ñuy bëre lan moo tax làmb nii waaw parce que ay bërekat lañ ñi bëgg a jeexal combat bi moo tax ku ci nekk kàttul ngay bëree ba Yankaw day dakk léewtoo bi demaat ñëwaat am koy dakk waaw parce que sa waay ni mu taxawee moo ko jaaxal daa ko ne bërekat la te siggiwul dana na góos moo ko arrangé ndam rek moo ko arrangé parce que daa nekkoon favori si tournoi kon bu ñëwee am defet il faut mu xoolaat ni muy defaat bu baax parce que daa juumoon bu keroog waaw kon daanaan moo ko daan war ko bàyyi xel. ne sant na léegi dalul. yaa ko nga yaakaar bu ñu xeexul buntu bi est-ce que est-ce que buntu bi na fay. non non il faut ñu xeex pour mën a bëre bi mën a yomb. loolu laa xalaat waaw il faut ñu xeex bu kenn wàññee morom rek bëre bi dina yomb. loolu laa xalaat voilà. mooy li ma la wax rek. Kaw Gourdin dafa ñëw pour serrer combat bi. waaw parce que am na 3 points. waaw am na 3 points. da ngay am na 6 points. parce que rek day bañ pour bi jaxasoo. calcul lay bëre ak conseil. Yankaw tay tamit boo xoolee dafa bëgg a teg combat ci yoon tay waaw parce que daa juumante rek moo tax. waaw mooy li ma la wax ci favori la bokkoon. waaw parce que bi ñuy ñëw ñëpp dañ ko joxoon favori combat yi. ñëpp dañ ne woon mooy jël tournoi bi bu ñëwee am defar rek bu ñëwaatee day rectifier defar bi mu defoon mu def. waaw parce que dama ne ki doon bëre xamu ko woon ko muy daan daaw la ah ko woon. mais ku ku ku ñu war a bàyyi xel la ci lamb. ah Thiam Daouda Fall de. xeex. daf nañ de. waaw waaw faaw mu xeex de. waaw faaw ñu xeex. lamb ji day ñëw de mën na ko. kaaw jël na ko daan na ko. kaaw daan na ko daan na ko de. lamb lañ doon bëre mooy man lamb lañ doon bëre de daan na ko de. daan na ko de wala. waaw ci li ma yaakaar. am na ni daanu na de. waaw daanu na ko. daanu na de. ah Habib de waaye man day woote waat de. wala ah ay. day woote waat Habib dina ne ñuy bëre waat. waaw arbitre bi dañ jël am parce que boo xoolee loxoom. waaw moo laal suuf. moo laal suuf waaye mais ci dara laal day teg timis day teg timis bi. ok mais arbitre bi da leen wax da leen war a woo pour ñu fomm seen. waaw moo gën a wóor. moo gën a wóor te jaxasoo mën na amaat. waaw da nga amaat sax li ñuy bëriwaat léegi. parce que ñamante ne ku ne xam nga sa morom li muy saf léegi. voilà noonu la demee. kuy demate di nga xam ci li ngay def. li nga def bi laaj noonu la demee. parce que ñaari góor balaa ñuy yemante dañuy ñamante ba pare. waaw loolu am na am na koo yàq ku ne raw fekk nga ñam. waaw saa bu dee fan la léegi mais demul. ndeysaan dañuy xeex doo ko bëre. waaw loolu foo mu am ci. loolu foo mu a ñàkk mënut a ñàkk parce que sànq boo xoolee laalante ba. saa bu dee doon jël la a féete su. a jeexal mais yaa ngi ko ngemb la am am ko mais da koo sol. yaakaar na wari ngemb. da nga koy waaw da ko bëgg a door naa. sama boobu mënta sotti. day jeex day gaaw wuuru day jeex wóor-wóor. yan gaaw ah kii la foofu de. waaye wuuru de. day jeex de. kaw naa du ko bàyyi de. waaw du ko bàyyi dañuy bëre parce que ay bëre jot na. léegi yan gaaw jàpp na gis na. wallaay booy boole boole ay ba. daan na ko. tànk oh. wala dugg tànk wala dugg. aywa yaakaar waay jënd ba mu ko daal a rëy. waaw da koy sumb ci suuf. te suuf la ko président Serigne Touba ndax boole na ma kii ñuy wax soxna Ndeye Soxna Ba ñu jàppale ko bu baax a baax te sama xol sedd na ak sama pare bi kenn du ko yëkkati na juróom million teg sama loxo. macha allah sama pare ba nga xam mais kenn du ko yëkkati na enveloppe bi diis jox ma mais nag juman góor la parce que Serigne Touba dama bañ jom la xam naa ci foofu wàllu ñaar rek dafa ñëw loolu de loolu na xam naa ko